condition bi mën ngeen yegg si fii sax fii lay dàqee de bu leen bëri kersa ñëw leen fii gars yi gis leen mission bi nag ba ñu sa ba ñu saraxe ku bëgg a saraxe mën nga sarax waa mission bi waaw ñoom miinuñu saraxe waaye comme que ñëw nañu si suñuy yëf te ñun ay jullit lañ ñun dañuy saraxe bu ñuy tagg seex dee leen saraxe ah miinuñu sarax ñoom xamuñu loolu waaye comme que ñëw nañu si ñun moom nañ leen sarax bismillah installez-vous voilà Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Oh. wallaay boo yëppoo benn wàlle ci lambi wafa kente kenn tëkkaalewul se serif nga wallaay boo yëppoo ba ñëwaale ci lambi waa faas kenn tëkkaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas wallaay boo yëppoo ba ñëwaale ci lambi waa faas kenn tëkkaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas wallaay bismillaay Rabisi Jalale, Sheikh Bismillah Bamakan, Rabisi Jalale. Walai. Modi Burdi Buru Buru Yalla. Walai. واحد الخاص سبحان الله الرحمن والله يلا ما جن فضل لما يريد والله يلا فول فول بايلن إتاخان والله بوربي يا جن مفاي تخاو أبدا أي واي لا قايد في جب موي برم أبدا والله بوي بو من يوالي تلومي وفا setaalewu la Cheikh Chérif Gadoma wallaay yàlla seede na boppam ne moo ko ne buur balaawu seede na boppam ne booba daa weet wallaay nguur balaa neex say jam di daw suba ngoon wallaay walaawul moo jiitu kun fayaakoon wallaay wasaaxirul moo xam lu nekk ci jaam taxiiru baatin mooy tawu teg ay jaam waaye la yàlla sos darajay Mustafa ko warloo walaay boo yeboo bañ a wàlle ci lombi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif Kadomas la yàlla sos darajay Mustapha ko warloo baay la moo ko tànn ca leeram ya def ko tolloo def ko gën ci mbindeef dellu def ko soppeem tibal ko cër yi mu dul may yeneen i soppeem yax rajo nga ca leeram ya yëppa yu leer bis ku li fadri yonent am leer jant bi weer wi biddew bi moo ko may leer waaye ku tal de ne boo naagu moo la may leer wallaay aliwun abi taalib ay dara karaara baayu aliwun abi taalib ay dara karaara bi muy liir bu tooy yaayam tëral ko dem Njangoor garam uti ko liir ba ne ñokke toog wallaay yaayam xoolaat ko mbir mi doon ko kemaan wallaay mu koy tëggal ne ko eskay borom karaara badara ba muy xale la ko yaayam ne woon karaara wallaay boo yeboo ba ñu wàlli ci lombi waa faas kenn tëggal

cent kaalewul se serif nga doo maas walaay boo yëppoo ba ñu wàllee ci lombi waa faas kent kaalewul se serif nga wallaay aliwun abi talib ay dara karara baayu aliwun abi talib ay dara karara bi muy liir bu tooy yaayam tëral ko dem toog ñangoor garam uti ko liir ba ne ñof ke toog yaayam xoolaat ko mbir mi doon ko kemaan koy tëggal ne ko ba muy xaleel la ko yaayam ne woon karaara walaay boo yëpp bañ a wàlle ci lombi waa kenn tëggale wu la Cheikh Chérif Fass ngeen tëgale le Ibrahima TV l'univers des barhamiens foo xamante ni lépp day bàyyi